mbokk internet Dak Médina maa ngi leen di nuyu di leen bëggee di leen ziar tey nag euh, ñi ngi fii ci rue 10 angle 31 Belgerie Paco Jackson Thiam ku nekk xam na Paco Jackson Thiam nag mu nekk président jàppo nekk nit ku baax nekk nit koo xam ne euh, responsable nekk nit ku social tey nag euh, ki ñu seet si waa Jokko la. tey émission bi ngeen ñëw seet si ñu man Masolo David Thiaw ngeen ñëw rue 31 angle 10 seet si ñu fii ba dëkk Jekko ñu jël bergerie bi tuddee ko Paco Jackson ngeen ñëw pour sept semaines pour ñu waxtaan si bergerie bi kon dañ leen dalal jàmm quoi. waaw euh, ginnaaw bu ñu génnee foofu David euh, bergerie Paco lan moo ko waral lu tax nga tëb tëb rek tuddee ko Paco. waaw parce que Paco dañu gis benn euh, nit ku baax ku dëkk Medina nit koo xam ne xamul jekkoo xamul jàppoo parce que yaayam jekkoo la dëkk. chaque jour day incarné man doomu jekkoo laa kenn pëlewu ma parce que incarné wul waaw ginnaaw loolu euh, tabaski ñëw na ba pare est-ce que clients yi ñu ngi ñëw. waaw pratiquement ñun soo xoolee suñu xar yi clients yi ñu ngi ñëw ah parce que ñu ngi ñëw soo xoolee suñu xar yi li bëriwul parce que soo xoolee xar yi dañu leen marqué ngi ñëw waaye parce que li ñuy jaayee mooy yenn maanaam moo tax clients yi ñëw parce que euh, xar moom su fekkee da nga séntu li nga siy def rek doo ko am waaye da xool diggante yow ak nit ki soo yombalee li ngay jaay nikki dina sawar pour ñëw su jëndee dina indi keneen ñu bëgg nañ xam tamit euh, prix bi ñaata la tàmbale ak ban moo gën a cher ak bu gën a yomb. waaw ñun suñu xar yi parce que bi si gën a yomb euh, bi si gën a moins cher mu ngi jar presque cent cinquante mille. bi si gën a dem plafond mu ngi jar deux cent cinquante mille. deux cent cinquante euh, yarum xar danga nga ci juddu wal da nga ko doon wala daf la dab rek neex la ngay yar xar. waaw tey laaj nga ma nag tey question bu ma gën a neex sama àdduna. parce que ma amoon benn période ma nekk kari jeeko may entraîné kari jeeko tabaski jot aw maam sama benn jour Babou Gueye moom ma dugg si yenu xar mu dem jël xar seen kër ñoom may ma ko. ban Babou Gueye la bu fan wala non non benn Babacar Gueye maa ko mu may ma xar bi bi ma ko mayee mu marqué ma trop ma jooy après ma jël xar bi yar ko tuuti mu màgg ma jël xar boobu jaay ko deux cent cinquante mun naa gannaaw yàlla wax yonent Babou Gueye moom ma dugg si affaire élevage moom moom ma njëkk may xar bi ma yar bi ma ko jaayee laa commencé jënd ay xar mun nañ xam ban année la waaw soo jëlee jàppatuma dal bi waaye peut-être su tabaski la woon muy joué Kara Diécko waaye yàgg na def na au moins ay dix ans waaye moom njëkk a may xar waaw moom njëkk a may benn xar mboote ma koy yar ma ko jaayee nag laa commencé dugg si affaire élevage. loolu moo la duggaloo ci waaw moo duggal si élevage. waaw nañ tamit fan yi tamit mu amoon ay manifestation am lépp euh, nit ñi amuñu fitu génn seen xar yi yow lan nga leen di wax ñooñu. waaw parce que ñun Medina chance bi ñu am mooy ñun dañu bokk ndey bokk baay ñun xamuñu affaire ay manifestation parce que ñun li ñu xam mooy ñàkk jëriñu nit ci dëkk maintenant war nañu mën a génne seen xarit takk seen bëtu kër yi pour jaay nit ñi parce que fitna baaxul quoi fitna baaxul ñun maintenant xamuñu fitna ñun jàmm lañ xam te si la ñuy dox si la ñuy wax waaw ci ngeen xam ci ngeen dox wax ah gis nañ tamit Medina autorité yi bari nañ fi Paco Jackson rek new fi ay Cheikh Ba ñi ngi fi ay Bamba Fall ñi ngi fi neneen ñu baax ñi ñi ngi fi est-ce que ñooñu tamit ñëw nañ fi nga xam ne mooy bergerie Paco ñu ñëw jëndal fi nit ñi ay xar waaw ñun pratiquement Paco moo ëpp lu fi ñëw ah. man damay wax ni man rakku Cheikh Bala man Cheikh Bala gën a miin waaye Paco seq lañu coloré Bamba ñëwagu fi waaye suñu sañoon ñoom ñëpp ñu ñëw autorités yi fii pour jënd si xar si bergerie Paco Jackson waaye xam naa ni dañ ko gisagul woon moo tax ñëwuñu fi ñoom ñëpp xam nga waaye xam naa ak Paco ñoom dina lancé affaire bi pour ñëpp ñëw fii pour jënd si xarit fi ko mais lan ngay xont xont bi tamit dinañ ci ñëw. Euh, saakuri paas ak yooyu ak ngooñ beek yooyu prix bi fan la toll. waaw cher na saako ngooñ mu ngi jar six mille cinq cent repasse bi presque mu ngi jar neuf nga soo bëggee jënd son kooraay bi mu ngi jar seize mille cinq cent métti na métti na waaye xar li muy xar moo si nekk mooy yow éleveur bi su fekkee da nga xool ne di ngay jënd dund bi ko cher man mënu moo ko jaayee loolu non day dund bi doo xool da ngay xool rek ne soit xar bi war naa ko mën a jaay prix bi ma jaay prix bi waaw. repas xar yi tamit mun nañ xam ban heure nga leen di jox lekk. waaw su ma gi dinañ lekk après ñu sotti leen ngooñ suñ guddee jot tamit dañ lekkat deux fois trois fois la ñuy lekk par jour ko trois fois waaw def boo doon tëj lan ngay tëjee ak ñan ngay gërëm ak ñi lay jàppale. waaw man su may gërëm damay gërëm sama ñaari rakk yi muy maam Thierno ak Mamadou Ba parce que gannaaw yàlla man ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay waaye lii yëpp ñun ñett la maanaam samay rakk ñoo def projet ñu takk xar fii xam nga lépp ñun la waaye samay ñaari rakk dama leen gërëm ñaanal leen yàlla yàlla guddal seen fan yàlla may leen wiir

waaw kon euh, euh, chers internautes yi lii la leen indiloon fi nga xam ne moom mooy bergerie Paco Jackson suñu grand yor ko muy Daouda Thiaw ki mu wax nag euh, muy Mame Thierno ak Mamadou Ba man Mamadou Ba c'est maa ngi koy nuyu depuis mi mi ngi Mali c'est mon ami xam naa dañ ko séntu fan yii rek Mamadou Ba na sa jàmm yàgg sa mag gërëm na la fi nga teg sa tànk noonu la rakk day topp mag keneen topp ji keneen topp ji xam naa ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen émission ci biir gétt gi.